man de benn ego trip bu Sadik mu koy gudd rek. Massi may nekk. defal ma Days a brick le plein may rab booy di toj seen monde bu Sidi Diop di laajte un may laaj seen xol bi ku ko moom. brique sa lay woy papa pen su ko mënoon ma ni la tekki am dërëm rek la ñuy maytoo sa noonu. Oh, sa rappeur acteur la mais acteur u bande dessinée. loxo gauche ma téye maag bi sama loxo droite ma ni bee si ne dama jantal ba bu ma ne woon Kim Kardashian du ni ma kenn westa fi ma tudd ara saay saay la gel bu ne bëgg maag moom ñu des si néeg oh, yow liiral liiroo jàngal nga bañ même liir du jaawale wen ak niidoo xiifal xiifoo tey de doo añ weeru koor gan buy fanaan la duñ ko dàq ci liidoo inoo même ino bu doon dund kànnaar day gën a jar gardien yi gën a am xëy waxal góor góorlu na dund ginaar gën a jar seen di gën a mën a sëy melentaan même bu lay màttu dalay jës bu te làmmiñ te kaani du saf ci làmmiñu mën soob ñii ñoo di gëm-gëm dëgg amuñu kës fu te sa rappeur bi ñoo di maari fa nekkoon na noppi maari fa mbóot la day wax rek mais ak a mën soob xala ni ko thank you guys Arru Mbed for real kon kaay ma wax la lu tax maak ñoom ñu uute man damay joué ak public ñoom bi def leen puupe wuute like ñooy def like Stromae buy woy papa uute arak daysa ngóor ji gaan demba ak dipon si diiki suuke neel ñi may clash arak daysa ci lëj dëkk ibaadu ci neige la booy mënoo fexe ba ma sol lu cëkk nee leen booy teewal mbedd ci mbedd rek lañ lay tooñ yaay buuru gém bi ak mbedd wan ñu say këyitu koñ dafa juum ba def ma concurrence tey rek lay dee ci mission man gisuma seen compétence ndax mag yéen du compétition man maay def rap man maay def trap seen bos bi kooba rajo ego teg sa man moom laay def ci rajo dama actuel ba kàddu dëgg doo ci dégg is back <laughs> lii di sound dama ciy foote noonu la gars yi nangoo ana wotel 18 ne leen sama xolu noonu ñooy tàkk eh, dañ koy fay ni nga. ma ne nga what's up Akhlou Brick Paradise noonu la mën a rab jarut sonn booy rab boo gisee rappeur buy rap naan. baax na de mais boo ko gënee def à l'aise gars yi di ko déglu ñu dem xool beneen rappeur boo xam ne aussi mën na rap il est de Yoff il s'appelle Paco Brise on regarde sa vidéo y a pas photo avec lui